gisee ñun ñëpp ñoo ko wax naa ko nen moo ko tudd maa sax maa bëgg na ngeen participer ci for fii maa képp kuy julli konti nekk muy diaspora bi muy Sénégal ñëpp bëgg naa ñu participer ci defaru fii nii waaw léegi nag képp koo xam bëgg nga si jàpp ba nga may woo ci 77 810 17 45 salaamaaleykum maanaam Seck salaamaaleykum ñu ngi ziar macha allah salaamaaleykum waaw waaw sant alhamdulilah képp koo xamante ni bëgg nga jàpp ci defaru fii ndax jumaa amul moquette yu baax fi warna am yu bari yo xam war nañ la japp ñu defar ko defarat néeg yi defaraat fi bu baaxa baaxa baax kep ku ci bëgg japp nak muy diaspora bi muy senegal jullit yëpp nañu and bolo defar dara ji nañu and taxaw imam ali Badara Ndao bu ko état defee ñu def ko bu ko état deful ñu def ko kep ko am bëgg ci japp nak may wo ci 77 817 45 wala nga woote ci 800 802 59 56 77 802 59 56 wala nga def 77 810 17 45 lolou won tay cale ci pos tey fii ci Kaolack fi nga xam ne mooy kër imaam Alioune Badara Ndaw ay waa këram ak yàlla def na presse pour wax ni vraiment imaam dafa seetal deru lislaam dafa sigil lislaam dafa sigil diine di ziar ñu bëgg bu fekkee am na lu fi nga xam ne suñu borom subhanahu wa bu fekkee am na loo xam ne dafa xaw doy waar nga xam ne yàlla suñu borom subhanahu wa ah, euh, ñun ñoo doy waar rek lépp yàlla moo ñu dimbali macha allah sëriñ bi ñu ngi ziar bu baax a baax sama patrie moom fitt nag maa ngi ziar bu baax a baax di remercier waat nit ñi mhm. di leen encourager waat mhm. leen wax ne teg seen tànk bu sama teg mhm. parce que dëgg la teg sa tànk doo tegee sa tànk dëgg doo bu raf di gërëm ñëpp tout le monde bàyyiwuñ kenn Abdou Karim Gueye eh, jërëjëf macha allah eh, spécial tout le monde macha allah nitu dëgg mouvement nitu dëgg yëpp jërëjëf jazakumullahu xayran ma fàttali waat rek ni kon dañoo bëgg def benn lance benn jàppoot Mbayang Dramé jugal dañoo bëgg teg benn sama patrimoine loo sama patrimoine loo waaw Lamine. waaw Lamine mi ngi lóore xanaa nga gaaw rek. gars wax nañu waaw waxal sànni ci baat bu ndaw rek. gars yi wax baat bu ndaw rek dama doon wax ni damay wax ni diaspora bi yëpp ak képp ku nekk Sénégal dañoo bëgg ngeen ñëw ñu ànd nag bu état defee ñu def bu état deful ñu def ñu ñëw defar daara ji defar fii gis ngeen classe yi ni mu mel gis ngeen bërëb bi ni mu mel la mooy sa xalaat si loolu Lamine vite fait rek batterie baa ngi wàcc. waaw man xam naa li ma ci bëgg def benn introduction bu gàtt mooy mhm. euh, dafa am ay baat yoo xamante ni Occident def ko jël di ko tiitalee nitug l'islam yi mhm. bokk na ci baatu terrorisme bokk na ci baatu jihadiste bokk na ci baatu extrémiste mhm. bokk na ci baatu fondamentaliste mhm. ay baat la yoo xamante ni daanaka ñu bëri ci nit ñi dañ koy daw mais dañu gis keroog ci procès bi eh, kilifa googu muy Oustaz Alioune Badara Ndao ci xam-xamam ci dalam ci yaram ci ngëm yàllaam ci am fitam mu nek ben cadre bo xamanteni cadre l'islam la l'islam ma ko yar l'islam no lay yare ay goram seni gor dañuy mat ci lépp surtout les volets ba mu tonto rek daanaka damay wax ni procès bi jeex na leeral na nit ñi lan moy définition baat bobu leral na nit ñi itam ban taxaway la ci nit ñi wara taxaw ba état ak walu bi mu ci am bo defee nak l'islam li koy doxal dafa am ñaari mbir yu doxal l'islam moy xam-xam ak moy yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañuy wax ne Ousmane ibnu Affan bokkoon na ci ki doon financé ci moom ku mel ne Aboubacar as-Siddiq radiyallahu anhu moom itam daan na financé ci moom kon il faut mu am ay bailleurs de fonds yoo xamante ne noo yulli seeni ñaq di ko delloo l'islam pour intérêt l'islam bu ko defee yi ñuy gis ni wax yeeg ainsi de suite yi yëpp ngay gis ni bés dana jot daal di changé ndax yàlla noonu la tëlee ay mbiram luy tàmbali day metti luy yegg na day gis ni dañ ciy wa sallallahu ala nabina muhammad jërëjëf xam naa ne sama parti bi moo nekk di wàcc maa ngi siyaar ñoom Maram Seck ñu ngi ne maa ngi siyaar bu baax a baax xam nga ñoom ñëpp xam naa ni macha allah ñu ngi siyaar asalaamaaleykum Maram Seck na def ñu siyaar bu baax macha allah macha allah loolu la noonu la demee nag donc damay wax fàttaliwaat rek ne leen képp koo xamante ni vraiment lii intéressé na la bëgg dañoo bëgg ñun defar daara ji waaw gis nga dañoo bëgg tabaxaat daara ji defar ko mais képp ku ci bëgg participer da ngay def 77 810 17 45 Mbayang Dramé day benn jàpp Mbayang national defi kooku mooy suñu jigéen ñu jàppale ñu dëgg ci képp koo xam ne ci bëgg jàpp mu jàpp ci donc noonu la ñuy ziar euh, Omar Sarr zigzag di bëggee nitu dëgg yëpp di leen ñoom ñi xam ñoo yëkkati seen paas jox ma ni ma naa ñëw teewal nitu dëgg fii ñu gërëm àdduna bi di gërëm Sénégal yëpp nag di ziar ñëpp wax yàlla di bëggee ñëpp salaatu